nee na seytaane nag mën naa xëy ci kër gu nekk nga yëg ko waaye boo ko yëgee nag yow bu fi dee yendu it taxawal ba ba mu fa ba fanaan nee na bu fi fanaanee rek lakk kër ga. xale yi yàlla na leen yàlla sàmm te yàlla teg leen ala siraatil mustaqim ba ba lépp lu ñu doon yaakaar ci seen kër maam yàlla defal leen ko amin ñun ñëpp nag ñu bokk ko fekke nee na alhamdulilahi rabbil alamin yal na yàlla defar gannaaw Sidi Lamine nee na kuy laajte doo réer fexeel bay waxtaan fexeel bay waxtaan bul yëg nag nit daf ma daf ma yàpp wala déggaluma yooyu bu ko yëg de boo ko yëgee rek toppante ak moom moomee bu defee itam bul xeeb kenn bul wuta moderne ba génn daara ji yow bul xeeb kenn bul doyalal kenn xam nga mag ñi ñoom li doon seen xalaat seen gannaaw moo di mbooloo mi ñu àndal di ay gor di ay jullit bëgg yàlla gis ni ñoo leen tane ci wàllu yàlla ñu am woyofuk topp ci seen gannaaw ñooña ñooñaa ngi fi waaye nag ñeneen a ngi fi itam boo sàgganee nag waa àdduna bi buux ñooña ñëw toog ñoom te duñ la jariñ dara